pari ah. wóor wóor na yàlla. <laughs> kii nag moom loo ko laajul rek mooy loolu kii mooy pari ah. waaw wóor na yàlla tonton kañ man man man daal démb laa ñëw. démb laa ñëw tax tax xam nga ni boo ko mel ni moom. waaw lu mu xewle. ndeysaan képp ku baax ku nekk ko déggee war na mën a ñëw. dëgg la wóor na yàlla. Mhm. waaw donc dama dama toog ba démb daal. Mhm. rek sama xel bi yëpp. nga ne daal jaadootul il faut ma dem ma ne ma gis quoi ma gis sama sama benn rek. ne mhm. comme yoon bi noonu la demee. te xam naa ne Matar sax su ma gisul mu jox ma bii. ma gis sama benn rek sama ku ñuy wax El Hadj Adama Touré. mun ma grand bu daal bu fekkee ne da nga bëgg a dem benn rek si si Pape Diouf. waaw ma dagal la bii léegi. am nga fu la man ko yow lay xaar. gaañaa ngi fi di def lu baax umu salamata taal madame Guèye noonu la ma dafal daggal ma biyee tubaarkàlla dafanteeg mën lu baax ma fekk fi Nafi Dia yaay sëñ Fallou mm. Cheikh El Hadj ak Jamila Galas mu aji Fat ma ca Thiès ñu may defal lu baax kon ku lay defal lu baax rek da nga koy bégee ah di bégee ñoom nabu baaba xale yaa ngi nii rimi yaa ngi nii dara seddul. Pape Cheikh Diallo léegi rek Pape Cheikh Diallo léegi rek. Mhm. li nga wax nii si na fi jaaj. na fi li nga wax si na fi jaaj ñàkk yaay Baba Jaaj loolu la ko Pape eh, eh, eh, Pape Cheikh wax. dëgg la dëgg la léegi yendu leen. dëgg la tey suba ah, dëgg la. <laughs> ndax doog na bis bi ne yan si la mais xoolal xale yi milan ñoom ñëpp ah, ah, jaara or bi ma takk nii démb démb démb démb moo ma ko jox. ne ma Ngoone Njaay géwél maa la bëggal sam bopp. man ko Babel Demba ak borom na ñu wax. yow Roush Gueye ba noo di wàllu ngalam te koo jéegu du mën a dem. barke sama jaara or nga ma décoré démb <laughs> mais par xale yaa ngi nii daal. waa ki dugg Aïcha. parce que pourquoi nga biir militaire nii muy métti nii. waaw xam nga man damaa def fi mag nii rek waa téye taw bi waaw. am naa dafa mel ni préparé pour berse bi. pare nañ pare nañ xale yëpp génn nañ. ñëpp ngi filaale ñu ngi fel. déedéet ñu ngi filaale ñu ngi bombaale ñu ngi def lu ne. def ba bi moom. tubarkal la xale yi laal Louis Vuitton def champs def lu ne gis naa leen. berse bi dina yëngu trop. déedéet dina mel ni ba Ngor Ndiaye Mbamba. accordé na kon